nationale après programme bi lii fi indi fulla ak fayda moo ñu dajale naa kenn ku nekk si yéen depuis trois jours comme quatre jours cinq jours yaa ngi bàyyi sa yitte tëj ma ne lii indi nuyoo président Lat Diop nee na bi ñu leen jot nañ léegi sa ay ñu ne ñu ngi koy jëlee pour yóbbu ko këram pour yaakaar naa saytu loolu nag yaakaar naa lu yoon dogal si d'accord ak ñoom si loolu. tey nag ñu mbir yi jàngat ko ko ñu xam ne politique rek moo ko laal te politique ko moo ko laal nag ñu ne ñu ma jëm këram borom koy fajal boppam ñu war a taxaw fii pour fajal ko suñu bopp tey loolu rek moo ñu fi indi wax ji nag du neex koy dégg ak ñi toog di xaar bu sàkk la jóg. Lat Diop fii la juddoo fii la yaroo ci réew mi la tekkee ci réew mi la mi di jàppale doomu aadama di leen dimbali ba doon yàlla tey nit nag boo ko jiñee ak sàcc te saytu di saytu amul benn rapport boo xamante ni jàpp na Lat Diop bus naa jël ñàkk jërëm kooku damaa jàpp lii gor amul kersa amul dara na ko war a bàyyi ci teg ak traak loolu yëpp nag bañ ko saytoo jàpp nañ indi leen ay nit pour bëgg koo dugal li gën a ñaaw ci doomu aadama nit liggéey ak li mu amoo dara doo koy jëriñ naan dafay liggéey ay jabaru jàmm lu gën a ñaaw si àdduna deful ko muy li bett ñëpp ñaareel bi mooy maa ngi dégg bëri dem ñu naan ko doo fa yem ak kañ lañ liggéey ak ak ak say kër mais am kër mënut am lu mu maye kon yaakaar naa liggéey amatul njëriñ ñi fi toog ñu bees yi nga xamante ni ba ñu commencé liggéey matul sept ans et boo demee li liggéey seen ay vingt-deux semaines bu ñu mënee am huit un milliard seen patrimoine ñooñu lañ war a laaj li nga am foo leen ko jëlee bu ñuy fekk sàcc ak wëlu ak bànn ci ñoom lañ war a dem fekk leen ñooñu ñooy sàcc yi ñooñu ñoo jël alalu réew mi ndax dañu liggéey moom leen may liñ ci am moom lañ joom nag duñ nangu kenn ku koy sacrifié ñun duñ seen loolu ko suñu waxi démb mooy suñu waxi tey président lañ joom dañoo bëgg ñun ñu ne géejawaay bi sama tàkk de ñoo ma yónni na ma suñuy xàtt lañ bëgg nga waxal ñu bëgguñu lañ joom suba fekk ko dig boobu ne dañoo bëgg ñu bàyyi ko jàppee du gàcce bàyyi ko mu ci gërëm ci ay bokkam ak ndaw leen président Ousmane Sonko dafa ñëw fii 2022 waxu mu bu fi président Macky Sall jëlee 2024 dinaa ko tëj la jóg du ragal du koy daw du koy wooy ay xale naan daal la doon di ko du koy roy ay la jóg dañ bàggal foofu kii ma gis fii ak vingt ans boo ko jël ci li mu taxaw ni lay taxawee du yuuxu du wote wayu du seet ku ko dimbal kon damaa bëgg ñu xam ne génutee gor la du gor bu set wicc liggéeyal askanu Sénégal fépp foofu Moussa Diagne suñu borom may yokk fa ma bëgg ñu delloo seen xel xam ne yii amut njariñ nañ ko teg ci suuf parce que duñu nangu mukk président nga jum ñu koy ko nangu boobu duñu ko nangu a taal réew moom mi ngi dox ba dem ba ci région bi di gën a xale ñun Dakar jëlee ñu toog jaay ko ak moom.

yéen laay waxaat bëgg ngeen déglu ma bis bi ñu tey boo leen gën a wax ci dossier bi jàppale xeex bi yéen ñëpp ci leen bokk ñu doon yéen dinañ dégg ñi nga woon ak kilifa diine yi woo woo kilifa diine yi kilifa aada yi te bu ñu jógee fii incha allah si kàddu suñu borom suba danañ seet suñu Muntaxa danañ seet suñu Baye Si Mansour képp kuy war a seet danañ la seet parce que bëgguñu réew mi yàq fii réew mi duggoon ñee ñee ñaan ba en Afrique la place des hommes dignes il disait qu'en Afrique la place des hommes dignes c'est c'est la prison ou la mort il me semblerait que en ce moment nous sommes sur cette même situation mesdames de la presse chers compatriotes nous sommes ici aujourd'hui pour alerter l'opinion nationale et internationale sur une situation préoccupante est profondément injuste que subit M. Ladiop, ancien ministre des Sports et actuellement en détention arbitraire. Depuis samedi dernier, il est placé en garde à vue après s'être présenté volontairement à une convocation de la division des investigations criminelles. Cela fait après heures que M. Ladiop est privé de sa liberté. Cyril Ba est privé de sa liberté sur la base d'une plainte déposée par Mohamed Dieng, directeur général de Wallis-Bett au Sénégal, l'accusant d'avoir reçu une somme de milliards de francs CFA ou plus, somme prétendument non justifiée. Les accusations portées contre lui, notamment de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux, sont selon nous non fondées et révèlent d'un acharnement visant à salir l'image d'un homme intègre dévoué au service de la nation. Il est de rappeler qu'en 2022, l'actuel Premier ministre, M. Ousmane Sonko, avait publiquement déclaré son intention de faire incarcérer M. Landiop dès son arrivée au pouvoir en Cette vidéo circule encore aujourd'hui comme un témoignage accablant de cette vendette politique. Nous constatons que cette arrestation intervient dans un contexte de préparation des élections législatives. Il est clair que certaines figures politiques qui suscitent la peur de l'impact de leur popularité sont ciblées et intimidées. M. Ladiop n'a jamais été épinglé par quelqu'un organe de contrôle de l'État concernant sa gestion des responsabilités qui lui ont été confiées. Au contraire, il a toujours laissé des résultats exceptionnels à chacune de ses fonctions. Prenons l'exemple de son passage à la LONAS, où il a fait passer le chiffre d'affaires de milliards à milliards. Il a modernisé la structure, changé son image, amélioré les conditions salariales des employés, mis en place comme les logements sociaux de l'État, tout en laissant une empreinte indélébile de transparence et d'efficacité. Malgré Ces accomplissements incontestables on tente aujourd'hui de faire de lui un otage politique, manipulé pour servir de, les intérêts d'un premier ministre revanchard. Comment expliquer Mohamed Dieng, présumé corrupteur, de circuler librement alors qu'il refuse de se présenter à la confrontation avec Michel Natto C'est interrogation qu'on s'est toujours Pourquoi seules les personnes, les personnalités sont-elles ciblées dans cette affaire, alors que d'autres également citées parce que même plaignants ne sont même pas inquiétés. Nous réclamons ici et maintenant la libération immédiate et sans condition de Monsieur Lat Diop. Libérez Lat Diop. Libérez Lat Diop. Libérez Lat Diop. C'est un Sénégalais digne. C'est un Sénégalais digne et intègre qui a toujours œuvré pour le bien de son pays. Cette cabale contre lui doit cesser. Nous appelons l'opinion publique ainsi que les autorités compétentes à prendre conscience de cette injustice flagrante et agir pour y remettre fin. Nous continuons à nous battre pour la vérité et pour la justice, afin que notre leader soit rétabli dans ses droits, que cesse cette persécution injustifiée. Je vous de la jeunesse.